wal alama alam ixtiyannahu nettali ko loolu ci listigaal la maanaa wax ki al alama wal alama ixtiyannahu ni ki say wasaydan idribannahu wal alama wax ki na nga nettali alamit la mu am ci leeraab in ci man in ariyat su man rafle woo min aatifin ci xarafu aatif wa kan iqtarana biha lan koo naag moom bu àndeet xarafu ataf nag kon kenn du ko xikaaya dañ koy bàyyi ci sukkoonu cosaanam bu ñu nee jaa zaydun nga ne waman zaydun loolu ngay wax waaye bu ñu nee jaa zaydun nag man nga ni manu wala raaytu zaydan nga ni mana maratu bi zaydin nga ni mani attaanis ah taanis mooy faru ci lisim xam nga cosaanu lisim mooy tazkir wal alaamatu taanisi taa'un wa alif wa fi asaamin qaddaru taa kalkatif alaamatu taanisi mandargam taanisal lisim taa'un taa lay doon ndegam day feeñ ca lafz ba de aw alifun wala alif bu fekkee ni nag taanis bilaa alaama la nga xam ne taanis ba yarjicu li maanal kalimati rek ni ki Zaynab ak Hind ak Dacab yooyu seen taalif taanis su maana wii la amul ci lafzu bi moo tax koo ci defoon turu góor it du soppi alaamatu taanisi taa'un wa alif taa nag moo gën a bare waa tax moom la ñuy nattale bu ñu ko fa fekkut wa fi asaamin nee na wa qaddaroo nattale nañu taaga bi maanaa xadaf nañu ko daal nee ñu xataa law qaala wa fi asaamin xadafu taa kalkati mu ne xadaf nañu maanaa ñàkk nañoo andi ataa ataa fi asaamin ci yenn yenn lisim yoo xam ne muannas lañu kal kaf wal ayn wal uzun yooyu yëpp amul taate dañu ko muqaddar kon nag nañu koy xame wa yu'rafu danañu xame taqdiru nattale ga ñu fa nattale taa bi damiri ci damir ja cay dellu dégg nga ni ki wa qidrun ka kaffil qirdi laa mustaciiruhaa seetal laa mustaciiruhaa laa mustaciiruhaa yucaaru walaa man yaatihaa yatadassamu laa mustaciiruhaa ci qidru la dellu soo ko doon wasafit danga naan qidrun kabiratun o dégg nga wa yucrafu taqdiru bi damiri wa naxweeg lu mel ni damir kal wasfi udunun waaciyatun aynun waasicatun قدر كبيرة كالرد في التسخير نيكي تاي دلو ستاغا تي سوكو دي تسخير قدر قديرة غيو أذن أذينة دنجر نون هكذا نخت لأن التسخير يكسب الكلمة معنى الصفة نخت بات بوكو تسخير لجي اندي معنى الصفة رجل سوكو بايا جاء رجل xel mel na du dem dafa rëy wala dafa tuut waaye soo ne jaa aru jaylun benn baat nga indi ba tey waaye day tegtale ni da nga ne jaa rajulun saxirun comme dafa yor maanaam sifa nag su dee mu annas fokk taagi day dikk ndax baat bi léegi maanaam sifa la yor moo tax nga naan oyoy natun te te di ci def xaw taanis katif mbagg paalan mbagg mu annas la moo tax ñu naan fulaanun yaalamu min ayna toog yaarifu min ayna tookalul katif te duñu ne min ayna yuukalu ndax katif mu annas la min xëy na toog nga ni katifun saminatun maanaam fii lii mel ni alluwa di tafu ci gannaaw mbagg boo xam nga ko ci jur tànku kanam ba day am pala yaxu pala gu ku jum gu kooku mooy katif lu neex la ci yàpp ñun waaye ak lekkinam nag ñëpp daawu ko dafa yomb la lekk boo ko miinul da ngay kii waaye soo ko miinee da nga koy sàkkal bunt ni ko fuleet fulli ko benn yàpp bu féete fee yax bi mel ni pala mel ni àlluwa bu féete moo tax arab def ca matal ci nit ko xam fu muy jaare mbir mu ne fulaanu ni yaarifu min ayna tukalul katif wala laa yaarafu laa yaarifu min ayna tukalul katif wa yuarafu taqdiru bi damiri wa naxwi ka raddi ni ki delloo si taaga fi tasxiiri ci ban ko tasxiire wala tali taagoo gu nag du ñëw topp faariqatan mbir mu muy tàqalee muzakkar ak mu annas am na ci sifa yoo xam ne taagoogu bu fekkee ni gi topp taqale mu annas dégg nga de waxuñu taawu mu baalaxa nag rek waaye taaguy teg taqale góor ak jigéen doo du topp ci yenn wasnu yi faolan bu yoree maanaam ah, faa'il du ko topp dégg nga su ko defee mooy safaanu fa'iil ju yor maanaam faa'il fa'ilun si ismu fa'il jooju su yoree maanaam fa'il taagi day dikk ci góor ak jigéen rahimun ak rahimatun fa'ul su fekkee maanaam fa'il la taadu ca dugg sabuur rajulun sabuurun wa mraatun sabuur gis nga nag soo leen defee maf'ul mu wëlbatiku ki daan ànd ak taa moo koy bañ ki ko daan bañ moo koy bëgg su fekkee fa'ulun ismu maf'ul la ci jublu taal farq dal koy dugg jamalun rakubun wa naaqatun rakubatun fa'il su fekkee ne ismu maf'ul la ci jublu moom it mu safaanoo nga ni imra'atun qatilun wa rajulun qatilun ndax ismu maf'ul la bi maanaam maqtul te bu dee ismu fa'il taaga dikk rahimun ak rahimatun yi nga dañu safaanoonte ah, du ànd ak ah, wala tali fa'ulan xaala kawnihi faariq faariqatan ndegam fa'ul ismu fa'il mubaalaga ak ismu fa'il nga ci jublu Hmm. soo ci jubloo ismu maf'ul mu ànd ak moom aslan ci cosaan walal mif'al si fa mubaalaga midraabun kum dóorekat mubaalaga yow comme boo noon darraabun nga ni nag midraabun kooku góor ak jigéen rajulun midraabun wala miksaarun wa imraatun miksaarun bu dee ku bare wax rajulun miksaar miksaar mooy ku bare wax bopp ah wa mif'il itam ci baalaga léegi mën nga ni midra darraabun wala midraabun wala midriibun mif'ilun sifa mubaalaga kon itam taadu ca jokk góor ak jigéen a ci yem ah dégg nga مم. والمفعلة كذاك مفعل وما يليه أنا مو مفعل وما يليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه وما يليه كذاك مفعل نك مخس- مغشم رجل مغشم ورا- وامرأة مرشم للذي لا يثنيه شيء عما يريده لشدة شجاعته لأن رجل مرشم بدل غنا مك تي لومو جبلو لو خيخ با مت مت فامرأة مرشم مفعل دو ام تلفا من نك وما يتليه لو خان توب نا تاجي تاك فرق تاي فرق بين المذكر والمؤنث ذي تي لي اوزان فشذوذ فيه ني وخ رجل مسكين وامرأة مسكينة كوكو شاذ لا بارو مسكينة صفة مبالغة مسكين موم نو ديكو فيري كو ñak ko amul dara ñu tuddee ko miskin min as-sukuni li annahu sakana an al-harakat al-maliyati xamloo alal day yëngal nit da koy tax mu bare voyage dem Europe da koy tax mu bare dem ca marché ba fekk dafa yor dara donkat su wóolowul woon su yorul woon dara da day tax day danaan rim dal day feeñ ba ci jëmm ji du yëngatu wuteeg borom alal ji xabar-xabar yi puukare di joow ay mbagam Ah. نعم. ومن فعيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التاء تمتنع وتم و- والتاء تاء تمتنع دنا تلو غالبا لئب من وزن فعيل قد قدمناه آه، كقتيل آه، وينك انتبع موصوفه انك مثالين وحده لو ننكو دون مثال رجل قتيل وامرأة قتيلة أما إذا قلت مررت بقتيلة بني فلان kooku fatta u waajibu ndaxte wa illaa iltabas bu fekkee jigéen la ñu rey da nga naan marartu bi qatilati bani fulaan waaye soo noon imraatun qatilun rek ngay wax ku ñu rey amma boo nee nag ah, bu bu dee jigéen la ñu rey te àndul ak mawsuuf ma andi woo taani bi qatili bani fulaan dañu jàpp ni góor la moo tax nag foofu moom taagi dana dikk ها؟ waaw ni ki man yuxyi al idaama wa hiya ramiim qaribun min al muxsinin ko kon xadaf nañu fataa ndax rahmatu muannas la aywa kooku وما تليه الفرق من ذا فشذوذ فيه نكي مسكينة ومن قتيل ومن فعيل دنك حرف نكي قتيل انت بأسطة بيما وسطاء تمتنع ديتر وغالبا من قتيل من فعيل نكي قتيل كسرت انت بأ موصوفه وأما إن لم يتبع, يتبع كالمثال أيوة فهو مقرون بالتاء فمررت بقتيلة بني وألف التانيث ذات قصر وذات مد نحو أنثى الغر ألف التانيث نار لا مقصورة أك ممدود مقصورة mooy gi xam ne dañu ko andiwul madd gu ko jiitu nga ni xubla wala zikra wala y ay awsaan yi muy naraw mamduuda mooy bi nga xam ne dafa amoon madd gu ko jiitu dañu ko wutal alifu madd zaida gu ko jiitu su ko defee alifu tanis nag su mujjee ci gannaaw alif day banku nekk hamsa xamraa u dégg nga su fekkoon ne da nga da nga koo def ni nga def sakra kon alif ga rek a fay ne waaye soo ko dawale léegi alifu madd moo tax ñu di ko wax aliful mamduudatu aywa alif ga dana gudd nag ndaxte alifu cosaan gi day nekk hamsa te hamsa day diis bala nga koo mën a tudd ñaare su ko xëcc dawloo dana aajo xëcc bu baax pour maxrajo hamsa dafa diis te suufe fi mu ne ci njëlbeenu baat moo tax day waral nga ni xamraa u looloo tax lu xëcc jëm ci hamsa te jokkoog moom fokk ñu xëcc ko bu baax pour nga préparé mën a tudd diisaayu hamsa way laa boo ko deful soo wattuwul da nga koy xaw a bokk def xarafu ràgg bu bokk xeetu mbijaam googu léegi xeetu xeetu xarakaam googu léegi xamraa u soo ko xëccul bu baax xanaa ni xamraaw xamraaw gisaloo ak waaw nga koy jànge diggante xam saag waaw xamraaw waaye soo nee xamraa u waaw kay dafay u da nga koy pare pareel de dafa diis loolu moo waral madd kat ci lu jiitu xam zaatu maddin zaatu qasrin wa zaatu maddin naxwu unsa alxurri maanaa naxwu unsa mufradi alxurri xurr jamu taksir la fuulun maanaa way weex kanam mufrad mi unsa ba mooy xarraa kon nag naxu unsa alxurri maanaa unsa mufradi alxurri amaa xurr kay moom noonu rek lay mel jamu jamu a xarr la jamu xarraa te lu mu ci mën a doon soo ci jubloo ay jigéen it xur rek nga moo tax ñu ne mu ngi jublu unsa mufradil xurri te moo di axar mu mu annasam xarraau wal istihaaru maanaam wal mashhuru daal l istihaaru siiw ga bari la ca bari jëfandikoo fii mabaanil ula ci awsaani gu jëkk gi nga xam ne mooy maqsuura moom la ñu jëkk a tudd dafa ne zaatu qasrin wa zaatu madde li siiw ci mabaani bi maanaa awzaan ci awzaan awzaan yi nga xam ne dana am alifu maqsuura li ci gën si yi ci gën bari jëfandikoo moo di yubdihi dana feeñal yooya wasnu fuala niki uraba ismun liddaahiyati uraba bi yuqad jadda bihi dégg luhaymul luhaymul uraba fi mabaanil ula niki fuala niki uraba wala fuala ci sifas muannas niki tuula jigéen ju gën a gudd muannasu atwal wala faala niki marata masdar la maanaa am njaab maanaa sayru la nawun min asayr gani saara albaciru marata wala wasnu faala jam'an mbir mu muy jamu niki sar'a way daanu fi suuf kooku alifu tanis la faala juy jam ni dégg nga day faala waxunu dégg nga aw masdaran wala sax muy masdar dégg nga ni ki tey dégg nga daawa ismu masdaru iddaa aw sifatan wala muy sifa ka shabaa ji firi jigéen ju di aji reg yooyu aw faa dafa am fukki awsaan ak ñaar yoo xam ne nee na wal istihaaru fi mabaanil uulaa du boobu bayt la nu jógel jële woon fee dem yub waaw defal naan wal istihaaru fi mabaanil uulaa yubdiihi wasnu uraba wa tuula wa marata wa wasnu faala jamaa aw sifatan aw masdaran aw sifatan ka shabaa loolu la waxoon mooy ñaari bayt yi ñu mujj mu ni aw awsaan yi siiw ci teggi alif gu jëkk gi mooy maqsuur gi yubdihi dana ko feeñal isna achara wasnan fukki wasnoog ñaar uraba fuala fuala tuula faala niki marata wala wasnu faala benn muy jam'u dégg nga niki sar'a wala muy masdar niki da'wa wala muy sifa niki shab'a sifatu muannas imra'atul shab'a ju di aji rek loolu la nu passé woon mu ne wala muy wasnu fu'ala niki xubaara wala di ko firee gëmment am picc mu rëy lay doon wala fu'ala niki summaha ismun lil batil wala fi'alla niki sibatra naw'un min al mashi fihi tabaxturun maanaam doxinu tiitaru woo di am sibatra wala fi'la niki zikra kooku masdaru zakara la wala fiila ni ki xisiisa min al xissi dégg nga te mooy soññi nit di ko ñaax di ko maanaam talab bi shidda di sàkku ci moom sàkku gu dëgër te mooy di ko soññi xisiisa ak ñaax mbaa soññ ànd ak fuulla ni ki ku furra liaa i tali xottu tóor tóoru tàndarma wi koy ëmb mooy ku furra dégg nga كذاك ما كانوا فعلانك خلي خليتا خليتا اسم للاختلاط معناه جحسو مبير يعني خليتا وقع الناس في خليتا معناه تمبير جحسو عندك فعلانك شقارا اسم لنبت ترجن غانشا وعز اسكنيل نك استندارا اكنيول الطرب لغير هذه اللوزان التي عدها ithnay ad ithna achara wasnan te mooy yooyu soo ko wàññee mu ni lu dul yooyu ci waxu arab lu néew a am la dégg nga te muy alifu maqsuur yii daal foo fekk yooyu wasnu alif gi maqsuur lay doon ah wasnu wasu li gayri hadihi istindaaran ni ki tey lu mel ni xay sara xay sara ismun lil xasaarati ku perte ñu ne di day xay sara daf ko dal fay ala kooku moom was na yooyu bariwul ci waxu arab dégg nga waasu li xayri hadihi istindaara li maddiha léegi pare nañu ci awsaan yi nga xam ne foo fekk seen alif maqsuur la mu bëgg a dem ci yi nga xam ne foo fekk seen alif mamduut la alif nag lu tax ñu di ko wax mamduut kon dafa mel ni cosaanu alifu tanis maqsuur la daan doon mooy alif gu ñu jokk ci mujj baat fatxa dawlu ko ay tàng nag danañu jël danañu jël alifu zaida dawal ko door a indi alifu tanis gi su ko defee alifu tanis gi léegi moom la ñuy def hamza du dëgg ndax toujours xarafu ràgg ci gannaaw alifu zaida ci mujj baat hamza lay la ñu koy mujj def kon xamraa u alif la waroon doon ñu dolli alifu zaida la ko jëkk kon alif ga soppi ko hamza ah li maddihaa ñeel na maddu alif wasnu faalaau niki xamraau wala afilaau niki arbiaau musallatal ayni baatu arbia sax musallatul ayni arbaaw arbaaw arbaaw yëpp la ñu afila wala faalalaau niki faalalaau niki tey aqrabaau li unsal aqaaribi yaakaar naa aqrabaaw am na turu mawdi de ci arab tudd aqrabaaw je jiib ju jigéen aqrabaaw lañ faala laa u daal summa fiaala summa fiaala dégg nga de niki tey qisaasaa ismun lil qisaas wala faacilaa u summa fiaala fuclu laa kay niki qurfusa nooun min aljulus faacula niki tey daabuqa wala taasucaa de dabuqa duñu ko xoj taasucaa ismun lil yawmi taasici dégg nga min muharram ak ashura yooyu faacula yooyu alifam mamdud wa faacilaa niki qaasicaa ak raahiqaa ak naafiqaa asmaaun li jixari li asmaaun li jixaril yarbo paxi yarbo dana am bu ñu wax raahita am bu ñu wax qaasica am bu ñu wax naafiqa naafiqa moom mooy li wolof di wax ak dem dellu kan moo xam ne janax ji wala yarboox bi dafa gas a gas soo ko doon topp day jubal ba nga defee ndem na mu nax la ndeke gas na geneen kër gu ca boor ba delloo ko mu jëm gannaaw soo dee gas nag doo gis googu mën nga dem ja daal di wii wii ndeke fat ndeke romb nga ko wëlbatiku na mu nga dugg ci googu loolu la moo doon naafiqaaw ci la ñuy jële baatu naafaqa fa huwa munaafiqun ci la ko arab jël ndaxte munaafiq dafa ni ànd ak jullit yi ni sër ba nga ni jëm na ni ndeke dellu na ci kufru te doo ko xam ndax melo diine yi mu lay feeñal ci kaw kon ñu nirale ko kan boobu nga xam ni moom la wolof di wax dem dellu dem dellu kanu mboolem yett yooyu am na ci wolof kan googu dem dellu lañu ko wax raaxi taa'u mooy kan goo xam ni moom dañu koy gasa gasa gas ba tuuti des ca suuf sa ci kaw tuuti nga xam ni tey su dee janax ji wala yarboo bi boo ko doon topp di gas bu demee ba tiit xam ni yaa ngi koy jot bu nee mbëkk bopp ba rek fekk tuuta dafa téenal kan mi ca biir suuf tuuta ko téeban mu ba fa der wa mu sànk su jàqee bu nee mbëkk bopp ba rek dem kooku mooy raaxita kooku nag tëj fal la ko wolof daan wax moom la ñu ko wax ba mu daan gas janax ci ngone am na boo xam ni bunt ba dafa fay des mooy dét dégg nga xaasia u laa la wax xaasia u mooy bi bi ñuy gas ba tuut des ci su ca mbëkkee bopp bi mu bën am na bu ñuy wax raaxitaa u moom dañuy gas kan ma bàyyi ko noonu rek bunt ba duñu ko sakk du dëgg waaw su fekkee ne dàq nañu ko fi barab mu daw ba accident li ci dugg raw kooku nag la ñuy wax koloor ci wolof ñaari ñetti kan yooyu koloor ak ndem dellu ak tëj fël su ko defee fu'lu la faa'ula wa faa'ila u qaasi'a u ak fi'liya u niki kibriya u maf'ula u niki mashyuxa u jam'u shaykhin wa mutlaqal ayni fa'ala wala wasnu fa'ala goo xam ne dañoo fataa faa gi waaye nag xarakatul ayni gi musallas mutlaqan bu dee dam maa xarfi maddin yunaasibuhu muy faulaau bu dee fatxa kadalika faalaau muy alif su dee kasra kadalika failaau muy ya faalaau wala ah wa faalaau wala fialaau wala fualaau dabooqaa lil adirati dem al wala ah faalaau niki barasaau lugatun من الناس يقال لا أدري أي البراساء هو أي أي الناس هو ولا آه فعيلاء نكي كثيراء كثيراء لبزر يا غران غني داء من البزر كثير نكا نون دانيو بصر قريثاء ومت آه سكو دفه مطلق فاء موي لجو بول ماس كي فام موي كوكو نكا نونو faalaau faalaau niki janafaau du dëgg faalaau uxida faala dégg nga niki tey kon nag yett yooyu mooy xuyalaau li takabur janafaau ismu ma in li fasarata dégg nga siyaraau li thawbin mooy faalaau joo xam ne moom itam mutlaqa fa'in fu'ala'u fu'ala'u niki khuyala'u fa'ala'u niki janafa'u fi'ala'u niki siyara'u li sawbin fihi khutut المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف معنى لن موي سبب بتخلص جدي مقصور ولا سبب بتخلص بممدود أمنا بو قياسو أمنا بو قياسو مجكي نك بقياسو ida ismun su fekkee lisim istawjaba min qabli taraf la jëkk pegg dafa yelloo fatxan fata dégg nga ni ki tey masdaru faila bil kasri lazim faalan wa kaana te mu nekk za nadirin di boroom ndend dégg nga ci mu'tal du dëgg ni ki tey asaf asifa asafan du dëgg su fekkoon ne dafa am ndend ci mu'tal moroom koo xam ne masdaru faila bil kasri ki jawi ya jawan ani ya aman léegi kon comme bu wéroon faalan ji dañuy wéral xaraf ya bu xaraf bu mujj war ràggee la cay mujj mu nekk li si maqsuur nga ne ama jawa xaya kooku alifu maqsuuram xiyaasi la da ngay seet lay ndeendam ci lismu saxiix muy faalan kooku bu dee mu'talu laam dégg nga alifa cay mujj jawiya au lieu nga ni jawayan da nga naan jawa amiya au lieu nga ni amayan ama nga wax ama yan nga bëggoon taxaraka xarful illati wam fataxa maa qablaha fa qulibat alifan du dëgg muy ama ama amaan fekk dafa amoon tanwin tanwin gi nag duñ ko dindi du dëgg waaye kon dañuy xadaf alif googu liltiqaa saakine ni nga ne aman rek soo ko defee su dee muxalla bi al nga ne al ama kon fali nadirihi ñeel na ndendam al muallil axiri la nga xam ne moom dafa ràgg muj ñeel na ko subootu qasrin saxu qasru ndax fataaga xarafu ràggay tegg su fekkee xarafu ràgg dafa fegg ba yeggal la ko jëkk fataa nu yëpp maqsuur lay doon bi qiyaasin zahirin ci qiyaas ju feen kooku moom qasru alif ci foofu qiyaasi la ka fialin ni ki wasnu fialin ak fualin fi jamci ma ka filatin wa fualatin fialatun ci jamu taksir buñ ca debee dana la waxal ne la fialun ni ki qirbatun wa qirabun su fekkoon nag dafa raggoonu ni ki firyatun aw fen da ngay daal di wax firaa firan du dëgg fialun firayun nga bëggoon a wax qasru dik nga ni fira jamu firyatin wa fualin ni ki dumyatun dégg nga qurbatun qurabun ngay wax nga ni dumyatun foog nga ni duma fi jam'i ma ka fi'latin ka qirb firyatin wala jam'u fu'latin naxwu duma jam'u dumyatin mooy misaalu jëmm nit boobu ñuy def ci yeneen matières yi comme caoutchouc wala matière plastique yi ñu koy defee wa mastaxaqa qabla axirin alif falmaddu fi nadirihi xatman urif su ko defee lii qiyaas ci alifu mamduuda it ci wujoodam mastaxaqa lu yelloo alifan alif qabla al axir am na lisim yu yelloo alif la jëkk mu ci xamoon ngeen masaadiru ma zaada ala ala sulaasi ala rubaay fokk la jëkk alif ga xam nga ni madd du dëgg ma maanaa déedéet dama ni masdaru mabtudi abi hamsil wasli te mooy ma ma fawqa rubaay xumaasi wala sudaasi alif waslu mooy tàmbali wasnu maadim bu mu ci dégg nga